muy jàngale siiraay gën ci arab maanaam jikkooy yonent bi nga xam ne moo gën ci arab ak doxalinam ak dundam moom lay jàngale boroom xam-xam bu mag boo xam ne kenn du ko laajte kon fii ci gën saa sori afrig mooy gën saa sori sori xarfu bi muy Sénégal fa la dëkk fa la juddu te yàlla mel ne ñooy kàngam mu dajale ci téere bi lu bari ci njàngaleem yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay mbiram doonoon tijaan buñ ràññee ci tariqa bi minal faslu olu xaaj bu njëkk bi fi man sey xalqi ci sosuwaay mbindam de la muy njëkk a jàngale mooy juddu gi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne la muy njëkk a jàngale mooy xam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na xamam njëkk na juddoom mu ne alhamdu cant lillahi ñeel na yàlla zil ijaad yi kay borom ak xamal wal qidami ak njëkk mu mit dinaa yàlla mu aji tëbbuñu bi wujudil badri ci am ak leer ba dil kay borom ak jiitu sallallahu alayhi wa sallam rajo si radiyallahu anhu mu ne ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne képp ko xam la xamal waaye lépp loo xam yàlla la xamal ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo fi jiitu lépp ñoon laa wax ne fode yi jiitu gu yàlla jiitu lépp rek waroon na leen dooy jëf bu bañ xam seen borom waaye daal ku yàlla hiiru hiiru na waaye bañ la jàngalee rek ni la yàllaa fi jiitu lépp loolu rek waroon na laa dooy jëf bu xëcc la laba la ba nga xam borom boobu moo di kan rek laa wax de yàlla moomu mooy ki tëbb xam ak weer wi weer wi kam ci na moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ñu ko jox ndax yonentu boo xamee yàllaa ko xamal waaye yàlla ba ma xamalee yonentu nag daf ko xamal ngir muy teraanga ñaal ñu yonentu moom nag dul xadam yi mooy borom ak jiitu moo jiitu ñëpp ci ngeneel waaye moo jiit ñëpp ceeg xam sallallahu alayhi wa sallam jiitu ñëpp ci ngëneel la koy dëggal mooy garaat ba ko yàlla takkal waaw ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina la yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mooy nga yërmaande ñeel nag mooy lu dul yàlla bu ñu xool lil alami rek sax mu doy ndax ala alamu mooy lu yàlla waaye buñ ci yokkee yaa ñun nag def ko jamoo loolu lay seexlaax pour lawal pour bañ cee génn benn mbindeef kon képp kuy mbindeef rek ci yonentu nga jëlee yërmande kon mooy tëbb ñëpp sallallahu alayhi wa képp ko xam dara ci yàlla ci yërmande yàlla la jógee yonentu nga xam ne moom la yàlla di jox mbindeef yi moom la waxoon ne man ka laa gu ma yàlla jox gu leen yàlla jox kado nag lañ ko war a fonk moom la waxaat ci hadis ba allah wal muti wa alal qaasimu wa kama qaala sallallahu wa sallam yàlla de mooy joxe waaye man maay séddale ni nga xamee ne li yàlla di joxe mënoo cee génn dara na naka noonu li yonent bi séddale sallallahu sa wa sallam mënoo cee génn dara benn hadis ne yonent lii lay séddale séddale yàlla li lay joxe joxe wul lële rek de te ku di xeewer njëkkam nag ci xam laa ji koy dëggal mooy xulin kaana li rahmaani wala dun kaana awwalul abidina yàlla su xamee doom duñ war a jaamu man maay maa njëkk jaamu yàlla loolu la yonent wax képp kuy jaamu yàlla maa la njëkk jaamu yàlla al abid rek dugal na mboolem jaamu ko te yàlla mm, ci àll ak istixraaq ga nga def ci na nga def ko nag jaamu muy war mboolem ñuy jiitu doon jaamu yàlla balaa ñuy jaamu yàlla rek fekk na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa jiitu na leen bu yàgg ci xam leeram a nga fa di jaamu borom bi subhanahu wa taala kon leeram a njëkk xam rek laa wax de loolu sëriñ bi dana ko jàngale ci biir téere bi war ne yàlla leer yonentu njëkk a bind waaw foo dee këyit nag mën ñoo dégg loolu waaye xel rek waroon naa mën a tax ñu yegg ci loolu bu teg si amuloo nit tax rawatina ci ñëw sallallahu alayhi wa sallam summa salaatu topp xewal wa taslimun ak salmal yafuuqu boobu dana kawe ala miskin ci gëttëg misk waran dina gëttëg rand ala zil fadli yàlla nekk ci borom ak ngëneel wal xadami ak borom ak teranga muy asharafu gis nga sëriñ bi nu mu déggee loxo baatu xadam andi ko ñetti yoon te benn bu nekk bokkut ak morom ko lu muy firi rek laa de mu def xéwal ak mucc goo xam ne moo gën a neex gëtt ak misk gën a neex gëtt ak yàlla nekk ci ki nga xam ne mooy borom ngëneel di borom teraanga mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa lii ak gindeeku mooy képp koo gëm te bokk ci doomi Hachim yi wala ñi ne te bokk ci doomi Mutalib yi Mutalib Hachim ñoo bokk baay Abdu Manaaf mooy seen baay. njaboot gën jur ku ci gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy seen i doom ak seen i sët da yaa ngi bokk ci ñoom yonent way tedd almutami ñi da way roy siratil muxtaar yi doxalinu yonent buñ ba wal xadami ak ndëggum ya mooy jeexitam sallallahu alayhi wa nga ñetti xadam yi yal na yàlla doole xewal ak musal ñoom yonent bi yi nga xam ne dañoo jub nekk ay tànneef yu tedd ñi nga xam ne ñooy doxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jeexitam fu yonentu jaaroon ñu jaar fa fu mu jaarutoon fa jaar maanaam lam defoon ñu def ko lam defu woon duñ ko def mu ne ko julli googu fu mu yem rajo Malick ne la ma mu ngi dënn mm, tan xibu ma ngay dajjatu min hadiila ngir hadiilam wa jëraa fekk mu ngi daw damoon ronkañ minal xalami lu jógee ci big fekk big yaa ngi génn rek bind waa loolu mooy ronkañ mooy la muy bind yal na yàlla julli ci yonent bi sallallahu fekk yaa ngi dënd yal na yàlla julli ci yonent bi fekk pitax mu doom taal moom ma ngay jooy xaddiil yal na yàlla julli ci yonent bi moom mooy fekk pitax yaa ngi sab ndax dañ ne xaddiil pitax la woon bu nekkoon ci jamono yonent yàlla noo xam ñu rey ko boobu ba léegi nag pitax muy jooyati rek moom ngay jooy loolu léegi arab la maanaam fekk pittax yaa ngi sab yal na yàlla jubli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaaji Maalik nag di la jàngal la Muhammad ibn Abdullahi Muhammad Rasulullah duñ benn te loolu laa benn teg yaa ngi woon xel war koo war ci yegg way na xoo naka is araada ba nammee Allah yàlla nashatanaa suñ sos abaana feeñal na min nuur yi ca leeram ga nuural na bii leer ak yonentu alaalami ka daa ji ràññeeku bëggee sos mbindéef yi nu mu def alaaji maari na dafa feeñal leer yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci leer yonentu boobu ci la bindee mboolem lu xam xanaa kii lebal na la ci yonentu bi waaw jàngal na la nag kan mooy yonent bi ci benn béykat bu gàtt na ba yàlla naree sos mbindeef yi waxu dafa dagg abaana firu dagg na ni ko ñenn ñi di waxee suñ ko waxee jum de feeñal na rek la ci namm feeñal na leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leer yonent boobu mooy lan min nuur yi te mooy leer yàlla ga de bugg fi leen min ak jóge daf ko min ak bayaan de leer yonentu googu mooy leer gan mooy leeru yàlla rek de ah loolu nag foo dee ci mën a dégg foo dee yaarifoon yi waaye foo dee këy bi moom moom ñoo dégg boo ko firee ak jugee weddi nga alquran ndax bu dee xam na lu daggee fa yàlla jugee fa ñoo nekk yonent yàlla Muhammad loolu doom yàlla la loolu rek mooy moo di doom yàlla ne lam yëri jurut moom jur mooy dara jógewul ci moom dem nekk leneen loolu alquran a ko dàq te bu dara jógee ci yàlla mën naa dañuy wax ne ko ne yàlla wàññeeku na te loolu jomb na ci yàlla nga ne ma déedéet ndax sondeel rek mën na laa jox leer te day wàññeeku ci leeram ka kon yàlla mën na lu raw loolu mën naa daggee yonentu sallallahu alayhi wasallam ci boppam te dara wàññeeku ci jëmmam jëm ñu ne waaye su boobaa rek jur na rek de mooy am na lu jógee ci yàlla dem nekk leneen te yàlla moom dara du xaaj kon nag neel feeñal la te leeram nga moom yàlla nag ko leer yonanti bi walla feñal no leer yonanti bi to leer goomu moy leer yàlla rek de num ko feñalee nag ah koo moom bu ci jéem a dugg dem xamoo ko daal xamoo ko waaye xamal na yàlla moom leer yonantu la feñal leer yonantu googu waaw ci la xamal lépp li am moom laa wax ne yàlla wax ne xijaabu nuur kiraayam leer la leer googu nag mooy leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la alquran di dëggal qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubinun kitaabun mubinun googu yàlla wax ne dikkal na leen moo di alquran noonu la ko fori firi firee wala fori yu bëri leer googu nag mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di noonu lañ ko firee kon ndeke leer gi yàlla di ñu ci hadis ba ne mooy kiiraay ak yàlla kooku mooy yonent bi loolu nag laa wax ne bu ci dara waratutoon xel war ci hegg ndax ku ne xam na ne mbindeef bi gën a tedd ci mbindeef yàlla yi mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xóor na ne ki nga xam ne nii moom la yàlla njëkk bind mu njëkk xam jugee ca leer ak yàlla war a boog yàlla feeñal ko ca leeram ga kooku moo gën a jege yàlla mi def yëpp ndax xel nangu daal di dagg-daggee yàlla rek moom rek moo fi nekkoon kon ca leeram ga rek la mën a xamale loolu mooy li mën a nekk afala tàqaloo nañu ci alquran daf lay jàngal li war a am ñun def boobu nag yàlla feeñal ca leeram mu nekk lu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bu doon keneen rek ko gën a tedd yonent bi moom laa ne kiiraay namuñ ci lu muur yàlla ndax yàlla yaatu na goo xam ne dara mun ko muur inna laa waasun alimun yàlla mu yaatu moomu ku jëlawut ak moom rek ci yàlla waaye yàlla moom mu fépp kon kiiraay gi mooy lan mooy ki nga xamee ne di am ci moom lay jaar ñëw ci mbindeef yi seen ak xam ak seen ci waa jooju lay jaar kooku moom doon ku ma yonente bi sallallahu alayhi ndax lu mbind kiiraay de mbindeef la bu doonoon leneen lu dul yonentu ñooy kiiraay kooku moo gën a tëdd yonentu ndax moo ko gën a jege wa saabiquuna saabiquuna ñooy ñan ulaaika almuqarrabuuna yàlla nee na ñi jege yàlla ñooy saabiquuna ñooy jiitu bi nag ci jiitu gi kon moom moo gën a jege yàlla ñëpp loolu war na la mu musal ci borom bi subhanahu wa taala waaye foo dee kayit yi ñu bëri ci ñoom kayit yi kiiraay rek la leen yokk indana waali ma naka min def ya alaaji maali na aliyaha ya safaree kaw wa saafi laa yi safaree suuf aliyaha mooy alamul arwaax mooy malaaka yi ak aljana ak sawara xoolaay ni yi musaafila di jafre suuf mooy yent yent yi waaw bàyyi ma yi ak ñi nga xam ne ñoo julu ci kaw suuf ñoom ñëpp alaaji maa nasami ñu jugee ci ki nga xam ne mindeef sallallahu alayhi wa mu ne alam yëpp na ne ko nit ñi ngay wax mu ne ma déedéet mu ma ci nit ñi ba ci malaaka yi ak yi alam ba ci fare kaw ak alam bi fare suuf lépp loo mën a xool xamal ne ceeneer la rek boo xam ne mu nga fenk jógee mu nga fekk fenk jógee ci yonent bi nga xam ne moo gën ci mbindeef sallallahu alayhi wa kon malaaka yi ci yonent lañ xamee ceeneer yonent lañ lampam yonantu moo feeñ rek mu ne tëll malaaka feeñ muy mela yonantu lampam yonantu moo feeñ bàyyi may feeñ moo feeñ doomu aadama yi feeñ moo feeñ asamaan si feeñ moo feeñ suuf si feeñ moo feeñ lépp feeñ moom la bàyyi di wax am demee ba xaal ba jàpp ko mu ne fa xeyru rasulillahi laysa li taalama lu dul yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xamul da nga xam loolu fóote yi ñoom xam nañ li ñuy wax fóote ñoom ñëpp mbokk yi wax kon nekk alam bi yëpp ci yonent bi la jógee ma tax bàyyi bëgg gi bëgg bëggoon yonentu tax ne mu ne bët may xool doomu aadama kenn du ko xool doomu aadama di bañ di ko bañ moom la xaal ba jàppoon moom ne foog waa kële charab bi yonentu mooy li may lekk mooy li may naan mu ngi junj béy rek de ñoom ñëpp rek feeñ waaye lañ ci feeñ waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alam bi yëpp yoo yàlla yonent la bind lu dul yonent rek feeñ waaye yonent la sallallahu alayhi wa sallam yonent daal moo di Ahmad alam bi ay cëram lañ xaaral ma noppi waalama xamal na laaw yàlla haadi naa suñ haadi moomu nga xam ne ci moom lañ jëlee xam ak lépp nu bu watu ak yonentoom wa kaana te nekkoon na aadama aadama benn nafsi ci diggante yaram wan na sami ak roxo mu ne yonentu bii bu yaakaar ne bu yàggul la juddu lépp ci moom la jógee leerama fi jiitu lépp yàlla xamal na ko ne ko moom mooy yonentu bii te boobu aadama xamagut mu ci diggante jëmm ak roxo maanaam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo fi jiitu aadama wa yoonul arwaaxi jëmmi yi in bajasat ballee nañ min min nuuril huda ci leer ak njub ga mooy yonent bi mu ne mbooleem roxo yi ngi jugee ci yonent bi xanaa laaj Malick si jeexal na la ci yonent bi roxo goo mën a gis rek roxo yonent la comme ni nga xamee ne courant moom ñaam leer bëri nañ uh-huh. waaye ñoom ñun nag seen rek lañ jëlee rek de leer gi moom benn leer la waaye roxo yi benn roxo la mooy roxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu mu ko tëbb nga dund rek laa wax de boo dee it yonent jëlaatal jëlaat roxam de boo fayee lamp bi fu leer ga dem bu courant coupé fu leer ga dem borom leer gaa jël leeram bu la baasee leeram rek nga daal di am leer roxo yëpp noonu lañ mel <laughs> sallallahu alayhi wa sallam mooy roxo roxo yi mooy cosaanu roxo yi fay noo nag moom ak jinsu mooy cosaan ala ala gi gën a kawe maa dinu sutumi mooy mbellatu cosaan yi sutumu moo di usul yi xeet bi gën a kawe nga xam ni ci la lépp jugee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu doon tey neel mooy garab ga min dee fee banqaas ak lañ moo tax ñu ne yonent bi mooy war a gënal suñu bopp ndax banqaas bu daggee banqaas meñ ñu waaye garab bu daggee moom lépp yàqu sallallahu alayhi wa sallam gërmaan ak yonent bi moo ñu waral gërëm moo ñu war a gënal suñu gërmaande ndax li gërëm bi mooy liy defar lépp waaye ñun la ñuy gërëm loo moom du dara waaw boo man banqaas bi moom intéressé moom laay roose moom laay toppatoo waaw garab gi sama yoon nekkut ca bu garab gi di am problème rek banqaas bi problème waaye boo toppatee garab gi moom bànqaas ba baaxaale moo tax ku xam bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mooy sa baax mbiram yonentu ko xam ni toppatoo ko ndax mooy sa kawe sallallahu alayhi wa sallam mooy xeet wi gën a kawe mooy mbellitu cosaan yi waxaat na foofu lu rëy yàlla am na ay cosaan yoo xam ne nii ñoom ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ jugee kooku dañ ko bàyyi noonu وخلق الأخلاقي بن من في بعض الأنبياء يونتي مقدمة الله تعالى رجل زورين يلفهم فعلم قم الله ولا تنمي برساقا من من في مكو يالا لي بن دابا بن رك بور الله تعالى مرام تيرو لين وان ني سوم واجا ني نيو يونتي يوني laytaay lañ rek pour wala waajaa ngi ñëw mel ni président bu war a ñëw ministère yi ñëw waaw gars yi commencé defaraare waajal pour pour président bi ñëw de bu dul woon xam ak yonentu yàlla du bind dara loolu la bëgg a wax yàlla du yónni benn yonentu yàlla yonentu mooy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne yonent yi dañ loo ñëw rek waajalaale waaye borom tool bi moom ñëwagut bu ñëwee dégg dana bay lépp mooy yonentu bu nekk rek ci benn gox lañu la yónni ab diir lañ la yónni bu jeexee jeex na waaye ba yonent bi ñëwee moom ci ñëpp lañ ko yónni wa ma arsalnaaka lañ ko yónni kon mooy borom tool ba gaa yi dañoo ñëw ku nekk ruujaale rek de yàlla dafa bind mbindeef yi ngir lan ngir feeñal taari yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci ñoom jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garaatu yonent bi waaw loolu rek moo feeñ ci pour ñu miinalaale mbindee fi jikko yooyu ak taar yooyu ak melo yu kawe yooyu benn mais ba miin ko rek ci la bi ne cëpp waaw mm, mm, mm, mooy ci saanu yonent yi moom gàddu mission bi nag mu jëm ci ñëpp kenn desatul de ndax buñ xëyoon rek yonent bi ñëw nit ñi mën nañu bañ a min loolu kon yónni yonent yi lay taale rek pour feeñ ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye min de fii bind ngeen leen bind lay la rek pour war na yonentoo ngi feeñ kii moo xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaaj Malik ne wal arwaaxu rox yi taabiatun way topp lañ leen rox yi ñeel roxu yonent bi fi alamil mulki ci alam nguur gu feeñ gi mulk mooy nguur gu feeñ gi roxo goo ci mën a gis rek muy topp roxo yonent bi mooy la mën a waxoon courant boo mën a gis ma nga topp seen rek mm-hmm. ñoom ñëpp yonentu moo leen tëbb kum tëbb roxo mënoo am wal jismi wa mu cosaan li wala gisaamu yi taabiatun way topp lañ li jismi ñeel jëmm yonent bi maanaam xam yëpp tamit ci am ak yonentu la amee bu yàlla amul tun yonentu beneen mi def du xam kon roxo yi mu jugee ci roxo yonentu jëmm yi ñu ngi bi haasa lii nag gaayatul mooy doytul waaye teraanga kon xam nga ne yonentoo tedd de sallallahu alayhi wa sallam képp ko rek ci moom nga jëlee am ci moom nga jëlee may sallallahu alayhi wa may wax nag jaar waayum jaar am na fukki kiiraay ak ñaar yoo xam ne yonentu fa mhm. boo xoolee kiiraay yooyu mooy tolloog daw waaye at mi weer fukki weer ñaar la dégg nga yooyu ay kiiraay la rek ba yonentu dawee ci fukki kiiraay ak ñaar wàcci àdduna doo fi gis lu may fukki weer ñaar de bu jeexee rek jeex na mu dawaat yooyu baamu weer wu nekk rek mu ngay junju benn kiiraay ci kiiraay yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa jaar na fa waaye kiiraay gu yonentu mën a jaar du fa yëg lu may boromam du fa wala fukki kiiraay ak ñaar yi mooy fukki feeñuwaay mazahir ak ñaar mazahir yi ak seen i ak ñaar lañ rek laa wax de feeñuwaay yooyu waaw kiiraay lañ yoo xam ne ñoo yit nit ñi waaye dëgg-dëgg rek la nekk moom du dara lu may yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Muhammad leeram du dara may leer waram bi mu ne wakkaana nekkoon moxtajiban daaji wala wakaana mosu dañ muxtajiban daa ji xiiru min qablu bu njëkkoon fi xujubin ci kiiraay da ngay dégg ñaa weeri nangam weeri nangam weeri nangam fekk du dara yonentu la sallallahu alayhi wa sallam <laughs> waaw mela yii da dégg ñu ne mela nangam mela nangam mela fekk du mela dara mela yonentu yàlla ga nag tur yañ leen jox ak yañ leen wutal kiiraay yaa wakaana mosul dañ moo tajiba ndaa ji làqu min qablu bu njëkkoon fii xujubin ci kiiraay yu sabbihu ma ngay si ay kiiraay yu sabbihu ma ngay sabbal allah yàlla fiyaa ci moom xeera muttasimin waaye nekkul aji yokkat du tayal bu mukk sallallahu alayhi wa sallam moom lu nekk rek mu ngi fay setal yàlla wala ne yàlla rek mooy mm, borom bi mooy ki xam waaw mooy ku ñu jublu waaw mooy ku ñu war a topp mooy ku ñu war a yëg mooy ku ñu war a huut mooy ku ñu war a bëgg mooy li nekk du ci tayal mukk maanaam bi fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun lu nekk rek kawteefam fa guy wane kenn nag yàlla ka saa su nekk waxtu wu nekk ak jamono bu nekk waaye yaa yëgul loolu yow nga rasolit ñàkk yëggoo mu ngay wane kenn nag yàlla nga de <laughs> mu ne sa réer ga ak sa ñàkk yëgg sa ñàkk xam nga lu muy wane mu ngay wane wéeta ak kennam ka ak melam yaa yonent wa ngi sabal yàlla nag ci fukki kiiraay ak ñaar ya kullu xijaabin bépp kiiraay aqaama sax na albadru weer wa min xuqbin ci ay xat fii ci moom li taati mawlaana ngir topp suñ borom bilaa saa min ci lu yokkat kiiraay gu nekk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa ay xat yoo xam ne mu ngi fay sabal yàlla di ko fa jaamu wa kulluha bépp kiiraay ci kiiraay yooyu hada làq na tasbiyan ak sàbbaal yaxusu boobu dana jagoo bi ci moom kiiraay gu nekk rek am na sàbbaal gam faram sàbbaal aati dinaa andi bi tarti bi haa ci toppalante ne ñoom kiiraay yooyu fi xusni muntazimi ci way gu aji rafet ak mosere looy wax xam ne ma ko waye way rafet la ñu ne ko alaaji Malik radiallahu anka ana kiiraay yooyu mu ne fa qudratun mooy kiiraay kattan kattan kiraay la ci kiraay yonent bi jaar fa qudratun kiraay kattan minu ci kiraay yooyu la bokk kiraay kattan yonentu sax fa fukki junniyaat ak ñaar mu doon sabbaal ma ngi doon sabbaal tur yàlla ba subhaana rabbil ala subhaana rabbil ala سلنا برم بكايبي سلنا برم بكايبي كون يبي كتن غولي على ماي باي القلب برم بغينا كايبي خمن وان القوة لله جميعا كتن يب كتن يا الله وهم كتن هم يا الله وانا ولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة قنا خمن يا من البن مولن دنا تتكتن بل مولن ماي كتن يونتنا يا الله ماي كتن دوريالكو mu sax ba fukki at fukki junne at waaye yëgul lu may kàtt na yàlla ndax sang la moom du fàtte dégg nga min qabliha njëkk na loolu izamun ak màgg wala boo min qabliha ci ba njëkkoon izamun jox nañ ko kiraa ak màgg yàlla fooral ko màggal ko lool mu sax ci fooraay googu ak màggal googu fukki junniyaat ak benn kiraay kattan fukki junniyaat ak ñaar la kiraay màgg nag moom fukki junniyaat ak benn la fa sax lu daan wax subhaana mi sirri maa ngi sellal ki xam mbóot waax faa ak la a nëbbu foofu it gisul fa màggaayam moom yàlla mi nga xam na nii moo xam secret yi ak mbóot yi gën a yi nga xam ne mooy ku nekk ci yow nga màgg kooku rek la doon gis kon bu la yàlla fooree bu léeg sa bopp ndax amaana sa fooraay gi yow doo ci sax dara lu ma sa téeméeri at lu tuuti ci fooraay gi yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a rahmatum ak kiraayu wala boog minnatun fa qudratun minnatun minnatun kiraayu minna mooy xewal ak yàlla kiraayu minna nag ni mu waxee dafa mel ni azam moo ko njëkk waaye am na ñoo xam ne ni azamatu gi la njëkkal ci minnatu nee nañ kiraayu minnatu yonent bi sax na ba fukki junne at mu di xewal yàlla wa yaqulu mu naan subhaana rafiin ala subhaana rafiin ala subhaana rafiya tudd naa sell ba aji yëkkatu gi alaa laa a kawe mbindatu mooy nga bañ a gis sa jëf seede xewal li yàlla xam ne moom moo jëf yi taar yi nga yi ngay nekkee ak kawe yi kooku xewal li yàlla waaye du sax may wa rahmatun ak kiiraay ak gannaaw ak kiiraay minnatu sax na ci kiiraay ak rahmatu juróom-ñeenti junni at la fa sax mu naan subhaana man huwa daayimu laa yazuuru subhaana man huwa daayimu laa yazuuru tudd naa sell bu bi nga xam ne dafay sax te du dañ ba mukk moo tax yéen maanaam yàlla du dañ moom waaye nag gisutu boxam yonent yonentu yàlla dafa gis gis nga moom gum ñëw rek moom du ko xiir yàlla waaye ñun nag kiiraay yëpp daf ñoo xiir yàlla kattan giñ gis mbindeef yi yore jàpp nañ ne kàttan yi mbindeef la waaw màggaay gi jàpp na màggaay mi ndéef la ba ñenn ñi sax ngi leen di jaamu xewal gi yàlla jox ñu jàppee ko jàmbaar ak di waa ko mën a jaamu yàlla ko foor ak mel nangam ak nangam yàlla feeñal nag ñu beru nag taratuñ borom bi ñu ngay xewaloo ko noosaka waa bew ak rëy waa yooyu yëpp moom yoonu te yàlla la ci daan gis loolu ñu la bëgg a jàngal ne boo xamee lenn ci delul ci yàlla moomu wa saadatun ak kiiraay ak texe li mustalimi yéen laa ji jébbalu képp ku jébbalu rek dana am texe googu kiiraay ak texe nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na fa juróom-ñetti waaw junniyaat lu mu mooy subhaana raufir rahim subhaana raufir rahim tudd sellab buur bi nga xam ne nii waaw mooy aji ñeewenti mooy aji yërëme ndax loolu rek la rahmatu mën a jógee la saadatu mën a jógee kon yow it boo yëgee ak texe bàyyil xel yi man rek yàlla ak ñeewanteem gi gi dal gi mu wàccee sa kaw ba nga am texe googu bu doon loolu doo ko am yonentu kiiraay gum jaar mu ngi cay sabbal boromam yëg fa yàlla moom dara mu ko fàttaloo yàlla karaamatun ak kiiraay ak karaama muy teraanga hmm. dégg waaw kooku sax na fa juróom-ñaari junni at mu naan subhaanal aliimil hakiim subhaanal aliimil hakiim tudd naa sella buur bi aji xam buur bi aji xereñ waaw baadaa nekk na ca gannaawam filaan di celliim manziratun ak daraja yàlla yëgi ko ci kiiraay ak daraja ju kawe mun fa sax juróom benn junni at mu naan subhaanal waa zil malikil alaa subhaana zil malikil alaa tudd naa sella borom nguur zur mulkin ala laay bëgg a wax tudd naa sell borom nguur gi gën a kawe tudd naa sell borom nguur gi gën a kawe <laughs> moom wàccuwaay bi moom yëgul lu may wàccuwaay yàlla daraja daraja yàlla bi gën a kawe lay gis yeneen gis leneen yonent yu bëgg a jàngal daf laa bëgg wax ne xaal boo mën a jaar gis fa yàlla te xaal yi mënoo jaar lu may xaal yi rek de kiiraay yonent bi jaaroon ba léegi ñun ci la ñuy wër waaye ñun dañ cee wër gisuñ bopp yonent bi nag gis yàlla kiiraay yii nag feeñ waaram ci jamono mooy fukki weer ak ñaar weer wu nekk rek yow fexel waaw mu nekk fan yàlla ahlu dunia fi ayaami dunia wa ahlu laahi fi ayaami laahi weer wu nekk gis ci borom bi subhanahu wa taala waaye bis yëg sa bopp hidaayatu nag kiiraay ak am na kiiraay goo xam ne mooy kiiraay hidaaya yonent bi sax na fa waaw junne yaat mu naan subhaana rabbil arshil azim yi subhaana rabbil arshil azim yi tudd naa sellam borom aras gi aji màgg tudd naa sellam kooku mooy jubale wa nubuwatun ak kiiraay ak nubuwatu ak yonantu fala tahimu bul gëlëm ci kiiraay ba ko yàlla joxee yonantu nag rek nubuwatu googu sax na ci kiiraay googu ñe dégg nga ñeenti junneyaat mag naan subhaanallahi wa bihamdi subhaanallahi al yàlla di làmboo sant ko dégg nga waaw maa ngi tudd sellab yàlla mais aji màgg maa ma ngay sabbal yàlla di yëg matam ga ci nubuwatu ga waaye yëgul matak leneen moom sallallahu alayhi wa sallam bari faatu na kiiraay yëkkatiku yonentu sax na fa ñetti junneyaat mu ngi naan subhaanal malikil quddusi subhaanal malikil quddusi tudd naa sell buur bi aji sell tudd naa suuf sell buur bi aji set kooku ñetti junni at la ko sàbbaal ci kiiraay googu ba ko yàlla yëkkatee moom yëgul lu may sell ak yàlla ga taxaatu na kiiraay taxaatul mawla kiiraay ak topp yàlla kiiraay ak topp yàlla yonent bi sax na fa ñaari junni at la muy sàbbaal mooy subhaanal qadimul azali subhaanal qadimul azali tudd naa sellab yàlla mi nga xam ne moo jiitu mooy ka jug coy maanaam ba muy am dara amutoon moom mm, jeex ci yàlla moom la ko yóbbee shafaatu kiiraay ak ram ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kiiraay ak shafaatu kooku sax na fa junne at nga xam ne ko am moo la xetri waaw ma ngi wax naan subhaanal malikil maabuudi subhaanal malikil maabuudi tudd naa buur bi ñuy jaamu tudd naa sellab buur ñuy jaamu bu wax ne boo bëggee mucc daal xaw yoon mooy jaamu yàlla rek de kon fukki kiraay ak ñaar yi la yonent ci jaar maanaam di fukki may ak ñaar yoo xam ne may gu nekk rek yonent yëgut ci lu may boromam mu bëgg laaj ñu ne yewit dégg nga waaw del dellu ci kiraay lu may gu la yàlla jox dellu ci yàlla moo tax mu ne fa qudratun kiraay kàttan minnatun ak xewal min qabliha njëkk na ko esamun ak màgg wa rahmatun ak kiraay ngir mànde wa saatun ak kiraay texe li mustalim mi aji jébalu karaamatun ak kiiraay ak teraanga baax daa nekk na ca gannaaw fi naan di ci compter manzilatun kiiraay ak daraja hidaayatun ak kiiraay ak njub wu nu boot nag yonentu wala tey mu bul gëlëm wa rifaatun ak kiiraay ak yëkkatiku waaw taatul mawla ak topp borom bi shafaatu ak ram ak yonent bi waaw yooyu kiiraay yi fiyaa nekk na ci at tamaamu mat li tartiib bi ñeel bi la toftale faxtak mi na nga xarañ ak dégg nag mën nga ko jàppee ay yeneen i kiiraay fekk may yàlla yi rek la waxaati ma aji dog la aboran ay géej yaa an yëri yëy fukk bia ci géej yooyu sabaxa la jiitu aljamee mbooleen seen yonent bi sallallahu alayhi wa jaar na ci fukki géej xam ne géej gu nekk may ak yàlla fa nekk fukki may yooyu mu am tax na mu raw mbooleem mbindeef sallallahu alayhi wa sallam fukki géej yooyu mooy ban min nazaratin ci xool ak yàlla moom rek la yàlla di xool waaye keneen ko amati yërmande rek topp yonentu moo la ko may waaye yonentu moom moo am yërmande goo xam ne yàlla rek koo may bëgg yàlla ci la ko amee moom rek la yàlla bëgg di ko xool wala xubbi ak mbëggeel ak yàlla xam nga kiiraayee mooy may yàlla yi ko yàlla jox mu jaar ca yëgut ci la mooy yàlla ak may yi nga xam ne nii moom ak grade yi nga xam ne nii yàlla ci boobu moo ko jëmale ci yonent bi mooy géejee nag dégg nga moom la yàlla di xool moom la yàlla bëgg ba ruux mi moom la yàlla yërëm xudratun kii géeje kattan su ma ikraamun topp leen teral teral ko yàlla teral na ko wa maarifatin ak xam yàlla shafaatin ak rammu wowdin ak njub juudin ak tabe tabe wa min hikmi ak xereñ mooy xam yàlla yàlla jox na ko nazaratu mooy xool gi mu koy xool ak bëgg gi mu koy bëgg ak yërëm gi mu koy yërëm ak kattanam ak teraangaam ak xam yàlla ak ram ak yoon ak ramam ak njubam ak tabe ak xereñam mooy lu nekk rek place am la koy teg sallallahu alayhi wa sallam yii fukki may la yoo xam ne nii yàlla nga ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa mu raw ci ñëpp ci may yi daal ci la rawee ñëpp de may yi nag boo xoolee rek dana delluwaat rek ci kiraaye rek laa wax de lillaahi ñeel na yàlla nuurun leer goo xam ne yakunu dana nekk allah yàlla mu di di ko dénk abal wara bàyyi mbindee fii taahiran bi mu aji laab fi taahiri dégg nga siyam yi nekk ci aji laab ay jikko laa wax de yonent bi sallallahu alayhi wa leer gi ko yàlla leer gi nga xam ne nii dégg nga moom la yàlla jël dénk ko aadamatu aadama mu nekk ca ndiggam mu ne leer googu yim naa ko leer ak yonent gi nga xam ne moom la yàlla dénk bàyyi mbindeef yi muy Adama Adama nekk ku laab jikko waaye leer gi nekk leer